maa ngi tudd Boussa mbay ma nekk coordinatrice cellule départementale de Diourbel cellule département de Diourbel tey ñooy distribu des kits seeni membres euh, di ko def benn acte symbolique di ci remercier ñëpp aussi di ci remercier ANAF nation bureau national bi vraiment di remercier aussi membres yi Diourbel ci taxawaay bi ci bëgg bi si liggéey bu rafet bi aussi di leen wax rek toujours ANAF moom euh, lii la soxla mission daf lii daf ci bokk ci mission booloo bi membre yi di booloo xamante bi demlante ak dikkalante bi moom mooy loolu la bëgg euh, juste rek dañu bëgg ñu ñu ñu jox ñaari élément ñu wax liñ xam ci ANAF wax seen xalaat aussi ci ANAF parce que depuis décembre 2020 ANAF mi ngi Diourbel ANAF buñ ma ci waxee dinaa ci sawar a tontu ndax man bokkoon naa ci ñu demoon le 11 mars dakaar bu ma fa demee li ma fa gis doy na waar ndax li ma gis ci jigéenu ASPF ëpp na torop torop torop te seen liggéey it rafet na ndax ñoom dañoo jóg pour takku liggéey jàppalante seeni biir bay tax ñuy booloo ñun ñëpp di def chaque année ay cotisation di ko verse ci benn fonds di wut ay partenaires it ñu ñuy dooleel pour bu ñu amee ay activités yu ñuy def ñu tibb ci loolu joxe ñu def ay activités loolu yëpp ci pour dimbale ñun ASP jigéen yi parce que xam nañ ne jigéen dafa yor kër te jigéen bu nekkee ci kër bu doxalee rek kër gi neex gis naa fa nag lu doy doy doy waar parce que Bousso suñu présidente mi nekk Diourbel moom ba mu ñu joxee ne jóglee ñu dem bañ demee foogoon nañ ne lu néew lañ fay fekk waaye man mii di ndey associé gis naa ne anaf ni mu taxawee puñ ci mànkoo ñun ñëpp jàpp jàppoo ñun Diourbel waxuma Dakar de waaye Diourbel dina gis boppam trop trop ci ASP. ndax tamit aussi anaf dafa doon loo xam ne ay caaxaan. ndax euh, bu ne ANAF national yaakaar naa ay jigéen nekk ci ah te jigéen daw liñ ne benn loxo mooy takk tubéy waaye benn loxo mooy takk sër kon bu ñu jugoo bu ñu jugee àndandoo bokk ndey bokk baay organiser lu mel nii wax dëgg ci yàlla buñ fi jugee war nañoo mën a yeesalaat suñu suñuy laxasaay gën a jàppoo ndax ANAF ay caaxaan bu doon ay caaxaan kon lu ëssi fii ndax euh, Bousso mii xañ na dana caat ci lu bari ndax euh, dakaar yaakaar naa dafa nekk ku ca teg sa bët soo dikkee Jurbel bokk ci anaf bi luñ la ci wax war na laa mën a doy rawatina ñu ay jigéen doon ay ASP kon dañoo war a joxe bon exemple bon exemple mooy lenn lii nga xam ne moom la ñuy def ñu def ko muy fulla def ko muy fayda ñu respecté charte yi nga xam ne moom la ANAF tëral ah ñun ñëpp rek ndax ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ ñu rafet ñu rafetal daal ànd bi daal. la présidente de l'ANAF à travers moom donc di nuyu tous les tout toutes les ASP ici présentes donc di jël nuyoo bi teg ko ci loxoom euh, mu nuyu ñu euh, la présidente kii kii à Dakar am na solo mënoon nañ la beddi. mais ANAM su demee ba xalaat la région de Diourbel je pense que le département de Diourbel euh, c'est c'est c'est une fierté donc aussi di remercier la présence des ASP ñi nga xamante ne dañu bàyyi seen liggéey heure bi naroon na fekk ci bureau yi donc bàyyi seen liggéey ñëw jàpp ci liggéey bi donc di saluer seen présence leen nuy bu baax euh, donc moi j'ai la chance de faire une activité au niveau de de woon donc euh, mu am ay ay ay ay ay ndimbal ñu daan jox daara ji donc yi nga xam te ne fekkee naa ko si ANAF di ko def mu doon aussi lu ma lu ma lu ma rafetlu gis naa aussi ANAF di def jeego di jàppale ASP yi nga xam dañu feebar euh, des enveloppes à hauteur de cinquante mille francs donc di ko jàppale ASP si Tivaouane ma nekkoon donc loolu tax na ma gën a jàpp si liggéey bi bàyyi sama sama soxla yëpp ñoo jàpp si liggéey parce que ñoom aussi. lépp lu ñuy def euh, defuñu ko ci caaxaan te ANAF dafa am tànku kanam maintenant lii de su suñ demee ba lii de lii de ñu jël ni ni ni ni département de Diourbel dañuy dañuy dañuy créer des kits pour jàppale ko ces ASP la qui sont de sont je pense que c'est c'est lu ñuy def rafetlu ko rafetlu ko donc euh, ñi ne c'est un geste bi nga xam ne ne geste bu rafet la parce que aussi ndimbal da si fekk loxol borom donc nit ki soo xalaatee euh, ñi ngay liggéeyal. nga xam ne seen doole seen loxo yeegul seen ginnaaw donc xalaat leen jàppale rek je pense à à l'idée de l'ANAF parce que c'est dans le cadre du social parce que ANAF te lépp lu muy def rek euh, euh, social moo jiitu donc kon lii l'idée euh, de la région de Diourbel donc euh, du département de Diourbel donc idée bi aussi dafay mel ni c'est ça renvoie à au, social donc di di di à travers la président di ko ne Euh, mu wax waa waa ANAF de Dakar donc dañu lebal waaw parce que en fait mënoon nañu def leneen lu uteeg jox ñu ko ñun entre nous mais suñ ko dimbalee ASP Tivaouane Diourbel rek c'est parce que dañu lebal donc le le mais meilleur à venir donc on va se mobiliser je serai derrière vous euh, jàppale leen fexe ba lépp li nga xamante ne nii. Euh, jigéenu ASP la dans la dans dans le département de Diourbel je pense que ni duñ ci des ginnaaw te di lancer un appel à tout toutes les ASP du département di leen ne ASP su xewlee ak loo munti def ak loo munti jàpp bàyyi ko nga ñëw jàpp ci liggéey parce que tu ASP parce que nit ki aussi sa kër yaa koy defar sa kër yaa koy defar kenn duñu kenn duñoo defar sa kër. léegi soo nekkee jigéen jigéen di xewle man mi CUD mi bàyyi sama sama bureau am des rapport à faire ma ko bàyyi ñëw ba fi nekk ak yéen kon donc képp ki nga xamante ne mi ngi si liggéeyam nan la mun a bàyyi pour pour pour image ASP dans son département donc di limité wu foofu leen di ne euh, kontaan naa si yéen donc di leen sant bu baax leen di gërëm. maa ngi sant en première suñu CUD bi monsieur Mouhamadou Fallou Mbacké Sall. vraiment parce que depuis mu ñëwee fii amul guddi amul bëccëg saa yoo ko soxlaa ci anaf mu bàyyi lépp lu muy def mu wuy si la mu gëm anaf moom en tant que chef d'unité dafa gën gëm anaf ba ñun di gëmloo anaf kon dañ lay wax merci Seydi euh, di la wax ne bëgguñu la décevoir ñun femme ASP de Diourbel tey nag le cellule départementale distribue de kit à ses membres loolu li ko waral mooy euh, jigéenu ASP Diourbel ñu ngi ci ñu ngi ci dimbalante ñu ngi ci social loolu nag ñun dañ leen di delloo njukkal ñun Diourbel dañ leen di delloo njukkal rek à travers l'ANAF ASP ñuy sant aussi madame Fatoumata seen Diouf présidente de l'ANAF ak équipe am yëpp membre bureau bi ñu ngi leen di sant ci liggéey bi ANAF nag lii daf ko bëgg dafa bokk ci mission am ci ASP yi ñuy dimbalante di demlante di dikkalante di booloo lool ci mission principale yi la bokk moo tax tey buñ defee lii ñu jël ay kit ANAF jàppalenu si ñu booleeg li ñu yor ñu def ko ci ASP yi membre ay membre am ANAF daf ci am mbégte moom parce que moom loolu ci ci ci mission la bokk parce que ANAF day dimbali ay femmes ASP yoo xam ne dañu feebar peut feebar bi xaw a metti parce que ne xam na ni feebar dafa metti même ASP luñ la jàppale jàppale ñoom dañuy indi ñoom tamit seen contribution ANAF ASP di joxe lii ANAF ASP aussi ay projet bëri na parce que ANAF ASP visé wul ASP ASP tey jii ku nekkul ASP sax am nga wàll ci ANAF boo ci mësee liggéey bu doon benn fan parce que ANAF daf ne tout ASP ayant servi servant ou ayant servi ASP ci lan bokk l'ANAF ASP aussi am na ay ponk yum tënk ñi nga xam ne association bi noonu lay doxee parce que ANAF ASP am na récépissé génn na récemment moo tax ANAF ASP dafa tënk am réglement intérieur am pour que ASP yëpp ñu jàppalante waat ñu gëm ANAF ASP gën ko gëm gëm nañ ko sax déjà parce que département yëpp xam nañ luy ANAF ñu gën ko gëm gën ci jàppoo gën ko fonk gën ci def li li nga xam ne réglement intérieur bi moom lay bañ ñu bàyyi ko li mu bëgg ñu nekk ci pour que dañu bëgg juste rek cellule départementale de Diourbel vraiment ñu ñun bu ñuy tudd ci ANAF ASP ci bureau national bi ñun bu ñun ñu nekk ci parmi les meilleurs ñi nga xam ne ñoo gën a bëgg a liggéey ñu gën a fonk amical bi aussi euh, di rappelé ne ANAF ASP bëgg na tey jii lu ñuy joxe pour lu lay tax nga nekk en règle ci amical bi ñu nekk ci ANAF ASP aussi bëgg na toujours euh, ASP yu jigéen ñi surtout ñu am ay formation am ay am lu moomal seen bopp daal ci wàllu bépp loolu yëpp ANAF ASP def ciy liggéey buñ liggéeyee parfois nag ñu def ay activité de loisir parce que liggéey dafa ànd ak loolu mais lim gën a bëgg mooy ñun ñu am formation am métier am maîtrise ci liñ bëgg a def aussi di santaat bu baax ASP yi vraiment ay brave dame lan parce que ñoom ñëpp ku ci nekk bu kenn desoon rek day feeñ mais kenn desul yéen ñëpp ñoom ñëpp ñi ngi fi vraiment man en tant que présidente dama leen di sant di leen remercier parce que bu liggéey jotee ñoom ñëpp ku ci nekk présidente ngay doon ku ci nekk da ngay jël say responsabilité topp liggéey bi gën ko bëgg sa moroom te loolu moo feeñ parce que dëgg yàlla lu ñuy def ASP Diourbel même bu dul ANAF dañu yàgg di def seeni ay activité mais ANAF daf ñu gën a jëmmal mais lu ñuy def ñoom ñëpp ñu ngi si vraiment jàpp ci liggéey bi gëm ko bëgg ko euh, ñu santaat bu baax suñu CID di sant aussi suñu superviseur parce que ñun unité départementale bi vraiment ñoom ñëpp ñoo jàpp ci ANAF amul góor amul jigéen parce que gëm ANAF dañu gëm ne lu jigéen ñi am rek góor ñi ñi ngi si parce que Diourbel ku ne xam ne ASP Diourbel ñëpp benn lan góor ak jigéen dañu dañu mànkoo ba pare kon ñu ngi leen di sant di sant unité bi ma ñi fi nekk ñëpp aussi di sant euh, bërëb bi ñu nekk ki ñu ko jox ñu defee ko fi muy directeur régional di développement communautaire di ko sant di ko gërëm ci toujours acte yu muy def ci ASP mu suñu ko soxla rek te amuñu ko di sant aussi chef de service yëpp di sant autorité yi parce que ñun lu ñu jàpp rek ñoom ñëpp ñu jàpp si ñu dem si ba mu jeex te ñun loolu moo ñuy jëmmal ñun loolu moo ñuy moo ñuy neex kon vraiment ñu ngi leen di santaat di leen gërëm di leen remercier di leen wax na leen le meilleur reste à venir anaf nan ci jàpp nanu ko gëm nan koy wuyoo di ko doxee incha allah léegi du yàgg léegi dinañ gis anaf ak ay yeneen xar kanam te yëpp nag day day day dugg ci cadre ASP yu jigéen yi gis ci seen bopp ci côté positive merci beaucoup